rahmatullahi wa barakaatu euh, monsieur le président ñu tedd ñi nga àndat yëpp ñëw mëri fii tey ci bés yi nga xam ne bés yu tedd la ci àddina bi yëpp bés yu tedd la fii itam ci Medina mooy bésu xaar ju juddu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne fu nit àgg ci teraanga rek ci yonent Yàlla Muhammad mooy buntu boobu teraanga googu yàlla may ñu ci barke yonent yàlla ci barke bi yonent yàlla Muhammad noo ngi ñaan yàlla yal yàlla saxal ko fii ci Sénégal waaye yal na ko yàlla saxal ci àddina bi yëpp itam monsieur le président ñëw nga ñu ngi lay kon ñu ngi lay ñu ngi lay tatagal ak mbégte ñu ngi lay tatagal ak kontaan gis suñ président de la république man gis suma président rek doon na may xaaruma yeneen ah gis nañ suñ président ñëw na toog suñ biir kenn ci ñun ñu ñu yëg ko mu yég ñu ñu xam nag fi ñu faree comme ni ko Mahi Cissé waxee boo gisee président da ngay foog ne lu yomb la ne lu jafe la xam naa ku manqué nelaw la ku manqué lekk la ku manqué jot la ku bëri bopp buy métti la xam naa sax léeg-léeg euh, loolu yëpp mu def ko pour dimbale sole réewam ci ay coono indil ko ci loo xam ne moo gën a yomb te dëgg-dëgg yomb yomb boobu gis nañ ko ci lu baree baree bari ci Sénégal te loolu yëpp sa taxawaay da sa liggéey la boo ñëwee wax ne dag ñuy tàggu vraiment nous tous tristes parce que dañoo bëggoon nga toog ak ñun rek waaye yàlla mi la may teranga nga nekk fii nga nekk teranga boobu yàlla bu mu dagg yàlla yàlla continuer terangaam ci yow nga nekk Sénégal nga nekk Fatick sa ak nga nekk ci bopp Sénégal yëpp yàlla na la yàlla sàngee mbubu teranga ak mbubu yiw ak mbubu sutura ak mbubu sàmm ndax bu la ko def buñ la ko ñaanalee jaral nga ñu ko te war nag war nga koo jaral Sénégal yëpp itam ndax euh, bu taxutoon ak xereñ bu taxutoon ak bëgg Sénégal bu taxutoon nag ut jàmm man Sénégal dina gën a jafe jafe trop waaye yooyu yëpp xam nga ko jëfee nga ko ba jàmm ji am yàlla def nañu am nañ ko yal na sax yal na jàmm jooju sax ba li nga wax mën a am ñu mën a développer suñu réew développer suñu mbay développer suñu suñu commerce développer suñu njàng développer suñu génération bu ndaw bi di màgg si te ñun lañ yaakaar pour mën a xam fu ñu teg seen tànk ñoom tamit pour liggéey moo tax wax naa premier ministre ma ne ko yéen yéenay modèle yéen leen di ñii di xool ñun xool ñun dañu ñëw rek dégluwaale ci ñun waaye yéen lañu xool xool yéen modèle bi nga xam ne yéen la nit ñi di roy bon nag na ngeen sàmm bu baax a baax nit ñi leen di xool waaye na ngeen sàmm avenir bi parce que message boo yónnee avenir dëgg-dëgg war nañ koo jàmm jàng jàng bu baax a baax mooy message yu alxuraan bi bu ñu ko jàngatoon bu baax a baax du mën a agsi ba fii euh, xale yi di ko mokkal di ko tari euh, Sénégal yëpp di ko tari di ko mokkal moo tax Sénégal dëgg-dëgg ñu naan ñaari sëriñ si waaye alxuraan la ndax as Sénégal bokk na ci ñeenti pays yi nga xam ne ñoo raw ci àddina bi ci alxuraan loolu teranga la te ba léegi ñu ngi bëgg alxuraan ñu ngi koy fonko da ngay tukki ci àll bi guddi gis ay xale ba léegi ñu ngi toog di taxani di taal pour mën a jàng alxuraan ci seen ci seen ci seen dëkk. bon fonk boobu Sénégal fonk alxuraan bëgg boobu euh, ya Sénégal bëgg alxuraan ala fokk dina ànd ak mbootu yàlla ak mbootu euh, alxuraan yàlla sàmm ñu ci barke alxuraan ak mbootu alxuraan. ak barke suñu sëriñ si nga xam ne itam dëgg-dëgg ñaan nañ góor nañ def nañ lu baax pour ñu nekk peuple bu kawee peuple bu civilisé peuple bu xam peuple bu mën a jëfandikoo ak àddina bi yëpp bu mën a jëflante ak àddina bi yëpp te dëgg-dëgg gis nañ ko ci monsieur le président euh, foo dem rek dafay mel ni foofu nga dëkk dinaa wax gaa yi mën a président ku ko bëgg a bañ bul toog ak moom boo toogee moom rek di ko bëgg parce que am na am na jikko am na jikko nekk ak yow comme ni nekkee ah waxtaan ak yow ree ak yow maa ngi koy eh, nettali suma benn soxna mu ne man ak Mahdi bu ngeen ne piip ma tëj leen ma ne ko ndax lan mu ne parce que ñoo falu ma nettali ko président mu ne ko ah Fatmata loolu ëpp nañu. donc ah. euh, gis nañ ko waxtaan bu am solo bi nga xamante ne euh, président Macky Sall amal na ko ak xalifu euh, Medina Baye Cheikh Mouhamadou Mahi Niass donc je rappelle leen.